soxna maam xari Mbàkke moom sëriñ Murtala doon jébbal si ay jumtukaayu set seetal aju si wàccaayu màggal Tuuba bi ginnaaw bi ko xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke rafetloo loolu boole ko ak Cheikh Bassirou Abdou Khadr Mbàkke moom mi yor kàddoom si kër sëriñ Touba bi nekk si jumo ji moom soxna si bi muy teew ànd na ak délégation bu mag ñëw nag jébbal si jumtukaay yi Cheikh Bassirou Abdou Khadr Mbàkke du ne guddi na du ne naaj na du ne teel na ndax sëñ Tuubaa moom amul lu tax moom daal roy lay def ku ko gën a nekk nag ci waaru sëñ Tuubaa bi rek mu roy la amul ci lu muy ragal amul lu muy ci lu muy xalaat wax la ne daal fas na yéene moom nii nga xam ne ni la sukkee sawet mook mbooloo mii mu àndal ñëpp dana leen sensibiliser keroog ba safar bi teroo la jóg ànd ak ñoom togg ay añ yóbbu ca daari kaamil daal di laxasaay dem ci kër sëñ Tuubaa yi wër ko gis mu mel na mu mel mu doxee nii mu doxee yow nag mi ngi lay déglu rek ndax xam ne yow amoo génn bëgg lu lëggéeyal sëñ Tuubaa ci ginnaaw sëñ Muntaxa Basiiru sañ Tuubaa fas na yéene daal nekk ci sa ginnaaw rek nga fasaaleel ko yàlla bu seytaaneem aw yoon ci li muy def ci barkeb sëñ Tuubaa maam xëri nag mi ngi nii Cheikh Abdou Khadir sa baay dama ko wax sa wax benn bis ni ko man de Mbàkke sa alal la mun ma alal du xam nu muy def du xam nu su koy def borom alal du seetaan ñu yàq alalam segam ne te wala ndoo waa daaru ca teen ba mata ñi ca pind ba ku laal ci Serigne Touba ku mu doon bala sa nijaay di yóbbu miim nga njuleel nga jëndee ko taalibe kon ak taalibe rek a fi dox moom nag moom lay wéel. kilifa gi di Serigne Cheikh Bassirou Abdou Khadr Mbacke seede jëf ji soxna maam xari Mbacke amal ngir màggalub maamam gi ne nag lii du tey yàgg na jàpp ne soxna si wàccul yoon bi. gannaaw bu la siyaaree ngir jëmmi sëñ Touba. ak ñi nga àndal ñëpp nee kàddu yii nga xam ne Mame Mbaye wax na ko du waxi kese waaye wax ju ànd ak jëf la ndax li wala fii di wax naan wax day tungoom seere waaw wax day tungoom seere loolu mooy lii ndax lii jëkkut tey te jëf ju ci nekk bëggoo kenn xam ko ndax daaw bi weeru safar wi teroo ba ñuy agsi ci biir màggal gi saa su saa soo xëyee danga togg ay teraanga yu bari andi ko ci biir kër sëñ Touba gi te terrain jii noonu nga ko fas yéenee defee ci lépp lu xew nga boole say teraanga ak say jëf ak sag defar def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa kon nag lii nga def yëg nañ ko bu baax a baax sëriñ bi mu ne xam na ne taxut nga def taxuñ nga def ko sëriñ Tuubaa mi tax nga jëf ko nag am na ak pay kon nag yàlla na la fay. waaye nag jumtukaay yi nga xamante ni soxna si indi na ko lan la composé moom soxna maam Xari Mbàkke leeral ko. ngir wàllu cet gi. ak euh, yi nga xam ne dañ ko fiy soxla moom lañ doon indi tey di ko jébbal Cheikh Bass Abdou Khadre euh, euh, muy matériel boo xam ne dafa jëm ci savon liquide yi nga xam ne dañuy setal ak lu mel ne ay saabu ak lu mel ne ay déodorant chambre lu mel ne ay eau ak lu mel ne ay darab ak asib maanaam bale maanaam mboole matériel ya yoo xam ne matériel lu kër la ñu koy soxla ci kër goo xam ne dafa war a teeru ay gan tagtagal leen te ñu teral leen moo taxoon ñu andi ko tey fii di ko jébal sëñ Bass Abdou Khadre ba tey cant la am si porte-parole du khalife général des mourides si taxawaayam si yoon wi ak màggal Touba moom it seede si wàllam sëñ bi euh, sëñ Bass Abdou dañ koy sant ah, euh, di ñaan suñ boroom may ko wér yokk kàttanam ba li mu fas yéene liggéeyal sëriñ Touba mu liggéey ko ci dëkk bi ndax ku nekk xam na ne bi nga xamee ne euh, sëriñ Touba Alaaji Baara doon na xalifa Serigne Touba teg Cheikh Bass Abdou Khadir ki suñ kanam ak tey wax dëgg yàlla ku ne gis na liggéey bu rëy bi mu liggéey ci yoonu murit ku ci nekk ci ñu nit gis nga liggéey bu rëy bi mu liggéey ci màggalu Touba gi ku nekk xam na ne màggal gi am na ay changement yu bari moderniser na ko màggal gi yokku na ndax yëfi Sëñ Touba sax xam na yokku la baaxoo waaye bi Cheikh Bass ñëwee nag ku ci nekk yëg nga ne màggal gi yokku na ba ku ci nekk ci ñun nga yëg ko fa nga nekk kon bu nekkee ci liggéeyu Serigne Touba bu toll nii ñun war nañoo jël la am ñëw andil ko ko ngir Serigne Touba jàppale ko ci liggéey bi te fas yéene nekk nag ci ginnaawam ci biir dëkk bi ak ci bitim dëkk bi fas yéene itam euh, toog di déglu ndigalam ñun ndigalu Cheikh Bass li ñuy déglu soxna maam Xari Mbàkke moom Serigne Mourtada mooy njiitu kuréel gi di Raziat ëmb képp ku yëngu si wàllu diwlin ak gerte si diwaan bi di actrice de développement kilifa diine doon it responsable politique si parti bii di APR si département de Mbacké yi. وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر